لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث الله مقام محمود رضيت بالله رب الإسلام الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي خلق الأرض وشق لنا فيه الأنهار أحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها النا... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى أقم الصلاة للذكر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى عسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مفعولا وقال أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن الص... و... الذين هم عن صلاتهم يحافظون قال تعالى قال تعالى إن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunaam bis penc doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu takkoo ragal yàlla ci fu ñu munti nekk ndax ñu xam ne ci ragal yàlla boobu la ñu mën a amee teranga àdduna waaye ci ragal yàlla aussi tam la ñu mën a amee teranga àllaaxira ajjana ëllëg ak jàmm ñu koy donn mooy ñi nga xamante ne moom mooy ñi ragal yàlla mu mel ne dañoo war a takkook ragal yàlla suñu giiru dund doomu ndey mbokk jullit ñi di ngeen ko jàngee woon ci xutba bi passé ci imam muhammad muy xadisu jibril nga xamante ne mooy xadis bi gudd ku ñuy wax amirul muminin umar bun xataab nettali li nga xam ne moom mooy xadis boobu jibril ñëwoon ci anam boo xam ne anamu jëmm doomu aadama la jàkkaarloog yonent bi sëmp ay oomam ci oomu yonent bi saa salaam di ko laaj ay laaj ñetti laaj la ko laaj wala ñeent bi ci jiitu daf ko laaj lan mooy islaam mooy suñu diine bi yonent bi xamal na ko islaam juróomi ponk la ci noonu la ko firilee islaam juróomi ponk yi mooy juróomi ponk ñu xam shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah seede ne yàlla moom rek la ñu war a jaamu te duñ ko bokkaale ak kenn waaye tamit seede ne muhammad ndawam la moo ko yónni waaye taxawal julli daa di joxe azaka woor weeru koor aji màkk juróomi ponk yi ci biir juróomi ponk yooyu nag la ñuy taxaw ci benn ci ponk yi muy li nga xam ne mooy julli mooy nekk suñu xutba tey doomu ndey mbokk julli ñi julli dafa nekk li nga xamante ne nii lu mënta ñàkk ci doomu aadama bi la comme niñ ko xamee ci xadis bi nga xam ne siiw na lool suñu diggante ñun ak yéeféer yi julli moo nekk suñu diggante loolu mooy wane ne nit su bàyyee julli ci coobare boppam dootul nekk li nga xam ne mooy jullit dafay génn ci diine bii nekk diine islaam buñ nee coobare bopp nag mooy nit ki mun na bàyyi julli ci ñàkk xam waaye buñ ko xamalee mu féttéerulu ne waaw man xam naa ne julli kat ci ponk juróomi la bokk moom yàlla moo ko santaane ci la ñuy jaamoo yàlla waaye sax xam naa ne sama diggante ñun ak yéeféeri julli la julli moo nekk suñu diggante mu xam loolu yëpp waaye mu dëgg ci tànkam nag boobaa kooku moom dañ koy takfiir génnee ko ci li nga xam ne moom mooy diine bi kon nit ki dafa war a taxawal li nga xam ne moom mooy julli li fekk mu ngi conscient li fekk mu ngi am xelam julli wàcc ko comme ni ko yonent saa salaam yàlla waxee ko ci alquran waabud rabbaka xataa yaqtiyaqal yaqin jaamul sa boroom ba yaqin dikkal la fii yaqin dafay firi al mawt mooy jaamul yàlla ba dee dikkal la kon nit ki dafay jaamu yàlla ba dee dikkal ko rawatina jaamu yàlla bii di julli nga xam ne wàccul doomu aadama bi ba keroog ñuy rocci ruwam li fekk mu ngi xelam doful julli wàcc ko ba keroog ñuy rocc ruwa na feebar façon feebar bu nekk na feebar ba mënatul sax taxaw na feebar ba cëram yépp bañ na benn cër mënatul yëngu waaye li fekk xelam mu ngi fonctionné rëccu ko rek dafay julli ci position boobu mu mënee kon julli du wàcc doomu aadama bi doomu ndeyu mbokk julli nii yàlla mu ngi ñuy wax ci alxuraan ci aaya bi ñu njëkk jàng mooy taxawalal julli ndax julli fàttaliku la nit ki saa buy julli na xam ne mu ngi fàttaliku boromam aqimi solaata li zikri yi fii julli zikr la ko yàlla tuddee kon ndekete zikr nekkul rek nit ki toog ci ruqam yor kurusam waaye zikr yàlla tuddee na ko ci ay forme yu bëri alxuraan sax yàlla tuddee na ko zikr julli bii ñu julli yàlla fii zikr la ko tuddee te zikr mooy firi lan mooy firi fàttaliku comme ni yàlla waxee faskuru nii askurukum fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen kon bokk na ci di fàttaliku yàlla mooy nit ki taxawal li nga xamante ne moom mooy julli muy bu njëkk julli nag nekk ci juróomi point ci journée bi yàlla moom moo ñu ko xamal ci alxuraan ci saar bi ñu aaya bi ñu jàngaat bi ci topp aqimi sola li duluki shams bu ñu nee duluki shams nag mooy jamono bi nga xam ne jant bi fenk na ba xar ba taxaw ci digg bi ba jéng sax nga xam ne léegi sa takkandeer bi jéng na lu tolloog sa sa sa paawu loxo bi nii boo ko defee nii ci sa takk ci sa ci sa tànk mooy maanaam boo jëlee sa ba sa baaraam bu dijj bi teg ko sa tànk mesuré ko boo ko tàllalee tàllal boobu taxandeer bi dëng lu tool noonu rek foofu la li nga xam ne mooy duluki shams mooy jam jamono bi nga xam ne jant bi incliné wu na jëm ba li nga xamante ne moom mooy jant bee ngi bëgg soow foofu yàlla mu ngi ci jublu ci julli tisbaar ak tàkkusaan kon ñii wax naan waxtu julli yi fan la ko yàlla waxee ci alquran nañ dem ci aaya boobu dañ koy gis bu baax a baax ilaa asaqil layli bu ko yàlla waxee guddi mu ngi tàmbali ci timis timis la julli tàmbali guddi mu ngi tàmbali ci timis ba keroog fajar gi di xar moo tax mu teg ci wa quraan al fajir boo xoolee timis ak gee moo moo nekk si ilaa asaqil layl waaye wa quraan al fajir mu daal di dugg ci li nga xam ne mooy fajar muy julli li nga xam ne mooy fajar kon lii dafay gën a dëggal sax ni julli yu tëddee keroog jibril salaa salaam julli alayhi salaam bi mu ñëwee di julli ak yonente salaa salaam tisbaar lañ tàmbali julli moo tax boo xoolee aaya bi yàlla mu ngi ko tàmbali si julli tisbaar tàkkusaan timis gee suba doog a ñëw kon lii mooy juróomi waxtu yi nga xamante ne nii mooy juróomi waxtu yi ñu yàlla tëralal te nekkoon na li nga xam ne moom mooy cinquante waxtu waaye képp koo xam ne taxawal na li nga xam ne mooy juróomi waxtu yi ci ni mu waree yàlla bu lay fay daf lay fay cinquante yooyu ndax ñun ñëpp xam nañ ne benn jëf boo baax bu benn jëf boo jëf yàlla daf la koy fay fukk si jëf boobu nga julli tisbaar ñu fay la li nga xamante ne mooy mooy dix nga julli tàkkusaan ñu fay la dix nga julli timis ñu fay la dix nga julli gee ñu fay la dix nga julli li nga xamante ne ni moom mooy suba ñu fay la dix muy cinquante kon yàlla fi mu taxawoon ba léegi moom mu ngi fa taxaw ci wàllu fay waaye nag daf ñoo wàññil waxtu yi cinquante yi ci yërmandeem la ñu ko wàññile kon nañu góorgóorlu ba taxawal li nga xam ne moom mooy juróomi waxtu yooyu julli nekk ay julli waxtu yoo xam ne waxtu yu ñu xam la inna salaata kaana ala muminina kitaaban mawquta waxtu la yoo xam ne waxtu yu ñu xam la jàkka ji yi ñuy taxaw di julli am na heure boo xam ne moom la ñu fixé fii ci tisbaar na ko gox bi yépp xam ne heure bii mooy heure tisbaar nga xam ne du génn intervalle julli jibril beeg yonent bi saa salaam ndax premier jour bi julli nañ ci bopp waxtu bi waaye deuxième jour bi julli nañ ci li nga xam ne mooy fin waxtu bi foofu ñuy jàngale intervalle boobu noonu mbooloo bi dëkk ci gox bi fu ñu fi jàpp ne heure bii lañ ciy julli tisbaar na mbooloo bi yëpp xam ne heure boobu lañ ciy julli waaye jàkka ji am yërmande boo xam ne duñu duñu julli lu jiitu waxtu boobu bu fekkee nag laaj nañu xaar sax imaam moom dañ koy xaar ñu dawal li nga xam ne sax mooy lu mat juróomi minute sax ñu xaar li nga xam ne moom mooy imaam boobu waaye waxtu bu buñ ko jiital di ko julli ngir lor ki nga xam ne moom jàpp na ne par exemple ñu ne deux heures et quart la ñuy julli ci tis ci jàkka ji yow nga njëkkante julli lu raw deux heures et quart te fekk mbooloowu gox bi ñoom dañoo jàpp ne deux heures et quart la ñuy julli am na gox yoo xam ne boo fa demee une heure et demie la ñuy julli am na gox yoo xam ne boo fa demee une heure quarante cinq la ñuy julli am na gox yoo xam ne boo fa demee sax trois heures la ñuy julli rawatina tàngaay bi nga xam ne dañuy dugg ci jamono tàngaay dëggantaan foofu xadis moo fa wàcc yoon saa saa moo ne barridu na ngeen seral na ngeen seral mooy bu leen julli ci jamono bi mu naaj bi tàngee jër ndax foofu loolu yëpp yërmande nga ciy gis am na mag mag boo xam ne bëgg na jógee këram ñëw julli si jàkk te mag am na ay faveur yoo xam ne yàlla defal na ko yu mu defalul jeune nga am dawal foofu yërmande xam ne mënul jóge këram ñëw dox ak naaj bu tàng bi ak mett bi pour ñëw julli si jàkk nga dawal foofu yërmande dawal xaalis bi yonent bi wax ne bari du seral leen seral leen moo tax ngay dem ci gox yoo xam ne trois heures sax dinañ ko julli mos nañ am benn campagne boo xam ne Kaolack lañ dem ñëw fekk gars yi di julli trois heures biñu leen laaj ñun bi ñu yegsee sax dañu yaakaaroon ne peut-être xëy na tàkkusaan lañu la ñu jiital wala nangam ñu laaj leen ñu ne Baye Niass moom moo leen jàngal dañuy julli trois heures imam bi ñu àndaloo ne leen de ci sunna la ko teg daal leen indil li nga xam ne mooy xadis boobu yoon saa salaam wax bari du bari du kon lii ay mbir la yoo xamante ne dafa wàcc ci waxtu julli yi kon buñ ci indi jiixi jaaxa ñii di si xuloog ñee ñii di si mere wala ñii naan imam rawaan mbay moom moo indi waxtu yi wala nangam déedéet julli waxtu bi jibril moo ñu ko jàngal ak yonent bi ci intervalle ñaari jour julli wu ko par saison ñaari jours yu tegaloo la ko julli yii mu julli ko ci bopp waxtu bi ëllëg si mu ñëw julli ko ci fin waxtu bi lu muy jàngale mooy intervalle boobu yëpp fa mbooloo bi jàpp ne bii waxtu la ñuy julli waxtu bii waxtu boobu mooy compter lu mel ne jàkk ji tisbaar la ñu jàpp ne muy moom la ñuy julli deux heures et quart tisbaar boobu mooy jàpp deux heures et quart pour gox bi yëpp boo génnee nag dem beneen goxu jàmbur gis ñuy julli une heure quarante cinq jàppal leen ko ñoom ne ñoom loolu lañ jàpp nga nangul leen ko kon amul problème xesaalika tàkkusaan noonu la am na ñu koy julli 17 heures mooy mooy le quart am na ñu koy julli 17 heures pile waaye tàkkusaan tamit waxtoom gudd na diggante bi takkandeer bi tolloo ak jëmm bi ba keroog jant bi di bëgg soow foofu tam foofa waaye jàpp rek ñu xam ne foofu la mbooloo bi jàpp timis nekk na waxtu boo xam ne waxtu bu gaaw la waaye tamit gée nekk na waxtu boo xam ne waxtu bu gudd la ndax diggante fi timis bi jeexeel nga xam ne asamaan si leeraay bi nee na kamaj fay nga xam ne boo téenee xool sa sa yëkkati sa bopp xool asamaan si day lëndëm boobu gée dugg na ba keroog fajar bi di xat moo xam moo tax moom moom muxtaaram moo gën a gudd kon foofu tamit nit ki fu mu fa mën a julli si diggante bu ñu jàpp rek moom moo gën moo tax da ngay gis ne sax ñenn ñi dañ koy bëgg yéexal surtout jàkka yi nga xam ne ñoom day am ay dars yi fay am nga xam ne diggante timis ak gée am na oustaz fay toog di jàngale ñoom da ngay gis ne dañuy préféré sax fixé ko si 9 heures la ñuy julli gée xam ne mbooloo bi yëpp xam ne ne 9 heures la ñuy julli gée ndax jàngale yi fay am am na ñoo xam ne une heure de temps lañ koy def si diggante timis ak gée am na ñoo xam ne une heure trente une heure dix yooyu yëpp baax na kon jarul muy indi benn xajj ak seen ci suñu biir lii mooy waxtu julli yi kon yaakaar naa ne yërmande rek moom moo nekk foofu noonu nañ ciy xaarante yonent bi saa salaam daan na xaar sax ba ci rukkoo daan na rukkoo jàppay oomam dégg kuy dóor ay tànkam di waaxu di ñëw mu sëgg si rukkoo bi bañ a jug di ko xaar ba mu ñëw ba kàbbar mu koy doog muy doogu siggi ngir yërmandeem bu mu bëgg mu fekkee ràkk boobu noonu kon nañu dawal yërmande ci li nga xam ne moom mooy julli yi imaam dañ koy xaar ci li nga xam ne moom mooy julli ci jàkk imaam mun na tardé une minute deux minutes trois minutes nañ ko xaar bu ñu yàkkamti moom dong la ñuy xaar ci li nga xamante ne moom mooy julli yàlla nañu yàlla may dégg ak topp doomu ndey mbokk julli nii julli dafay jëlee nit ki ci ñaawteef ak bakkaar comme ni ñu ko jàngee léegi ci aaya bi inna salaata tanha anil faxshaay wal munkar nit ki buy julli war na xool ay comportement am boo xoolee xutba bii passé bu imaam imaam Muhammad mu ngi doon wax ci wàllu comportement wàllu jikko waaye jikko dëggantaan nit ki daf ko war a nattee ci julli nit ki daf ko war a nattee ci julli nit ki bu fekkente ne mu ngi julli te mënul bàyyi comportement bu ñaaw bu yow mu xoolaat ay jullim te xam ne julliwul yàlla waxul julli yu bëri de benn julli kese la joxe inna salaata benn julli kese bu baaxee mu ne tanha anil faxshaay wal munkar daf lay jëlee ci ñaawteef ak li nga xam ne mooy bàkkaar kon nit ki buy julli na xool comportement fan la toll ci ñaawteef ak bàkkaar yi bu fekkente ne mën ko bàyyi rek na xam ne julleegul waaye bu ko yombee mu seexlu ñaawteef ak bàkkaar na xam ne julleem yàlla mu ngi koy nangu doomu nday mbokk jullit nii jullit julli dafay texeloo doomu aadama comme ni ñu ko yàlla waxee suutu muminuun xad aflaha al muminuun yàlla neen texe texe na ki gëm yàlla te bi muy joxe mandargay gëm yàlla ci julli la ko tàmbalee ci julli la ko jeexalee mu ne mooy ñan mooy ñi nga xamante ne bu ñuy julli dañuy toroxlu si biir seen biir julli lan mooy toroxlu mooy nga wàccee sa bopp si julli bi xam ki nga jàkkaarloo mooy kan ndax nit ki bu nee allahu akbar na leer na ko ne ko leer ne kanamam mu ngi jàkkaarloog li nga xam ne mooy kanam borom subhanahu wa taala tey suñu muri àdduna yii rek ku fi jàkkaarloo woon benn autorité yaakaar naa di nga wàccee sa bopp wane modestie wane loo xam ne ndax lan mooy autorité bi nga jàkkaarloo ku demoon léegi commissariat jàkkaarloog ki nga xamante ne mooy inspecteur bi wala kii noonu lay def ku demoon léegi jàkkaarloog directeur école am wala maître am noonu lay def président de la république noonu ngay def. waaw kay fa ki bindu ñooñu ñëpp nag nga jàkkaarloog moom mu may la audience cinq fois par jour soo jàkkaarloo moom war nga wane benn humilité boo xam ne doo ko yemale ak kenn kon loolu mooy toroxlu si julli li koy yombalal nit ki nag mooy mu fexee xam buy julli lan lay julli taxawaay bi lan moo tax muy taxaw lan moo tax muy rukkoo saar bi muy jàng lan lay wax su ko defee yooyu da koy permettre mu am toroxlu li nga xam ne si biir julli waaye tamit mu jeexalee jikko yi ñi gëm yàlla ba léegi si julli mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel julli mooy ñoom dañuy prompt ci julli gi dañuy matal rukkoo yi dañuy matal sujjóoti waaye tamit waxtu yi duñ ko tardé ñooñu ñooñu ñuy bàyyi xel seen julli tey ëpp naa def nit ki du julli te da nga gis julli farata nit ki taxaw di julli julli ko normal te suñu deuxième partie loolu foofu la ñuy wax bu ñëwee si julli naafi la jullee ko nu mu ko neexee loolu ëpp naa def nit ki suy julli dafa war a respecté taxawaay yi bu rukkoowee xam ne rukkoo na bu sujjóotee matal sujjóot bi ndax yooyu yëpp dafa am ay ponk sujjóot dafa am ay ponk ni julli ni julli nekkee ponk si ponk diine sujjóot dafa am ay ponk nit ki il faut mu sujjóot juróom-ñaari cëriñ wax ci moom laal li nga xam ne mooy suuf si yoon saa sala wax na si xadis sax nit ki bu sujjóotee bakkenam bii laalu suuf day yàq li nga xam ne mooy julleem kon nit ki suy sujjóot jëbi ak bakken bi ñoom ñooy laalandoo suuf muy ñaar ñaari loxo mi laal suuf muy ñeent ñaari óomi dafay laal suuf muy ñaata juróom-benn ak mu dajale tànk yi nit ki du sujjóot jël tànk yi ubbi ko déedéet tànk yi daf koy dajale mooy bu ko dajalee mooy ñaari baaraam yu dijji dafay kolante woo mu nekk li nga xam ne mooy benn cër juróom-ñaari cër yi la moo tax nit ki bu génnee àdduna sax buñ koy sang ba di ko defar bu ñuy parfum juróom-ñaari cër yooyu la ñuy parfum te juróom-ñaari cër yooyu bokk na ci liy seede nit ki yowmal xiyam kon nañu bàyyi xel ponk yi nga xam ne mooy ponk su jot ñu matal ko bu baax a baax doomu ndey mbokk jullit ñi julli dafay jëmee nit ki ñàkk julli dafay jëlee nit jëmee nit ki safara safara de dañoo laaj ci alxuraan maa salakukum fii saqar saqar benn safara la boo xam ne moo gën a tar ci safara yi moo gën a tar ci safara yi malaaka bi laaj leen maa salakukum fii saqar lan ngeen sàgganee ba dugg ci safara bii ñu naan saqar xoole li ñu njëkk tontu qaalu lam nakun minal musallin ñu ne daa bokkuñu woon ci ñi nga xam ne dañ doon julli bii mooy premier mandarga bu leen dugal safara mooy daawuñu woon julli alxuraan la de yàlla moo koy wax kon bokk na ci nit ki texee di mooy mu bàyyi julli nit ki su bàyyee julli rek premier signe ci moom mooy mooy signe koo xam ne kii du texe ëllëg ak jàmm te ñàkk texe boobu noonu daf ko koy jural sax fii ci àdduna mooy xoolal nit koo xam ne du julli jafe-jafe yu muy nekk xoolal nit koo xam ne du julli nu muy àndeek lëndëm nga xam ne làmp leeram dafay fay xoolal nit koo xamante ne du julli ni ngay gisee nu muy saltee ñu baal ma ci terme bi ndax boo xoolee xadisu abu hurayra ni ko yonent bi saa salaam man mandargalee juróomi julli yi dafa ne koo xamante ne si buntu këram fleuve mu ngi fa fleuve nag dafay rëy si ñun mën nañ jël exemple piscine mu ngi ci buntu këram mu fay sangu juróomi yoon yonent bi posé question est-ce que kooku salte dina nekk ci yaramam sahaaba yi ne ko benn salte du nekk ci yaramam mu ne exemple bii mooy exemple julli ci nit ki su respecté julli juróomi yoon mooy que ne benn salte du nekk ci yaramam salte bi bu nga ko firee dam bàkkaar mooy julli dafay raxas nit ki si bàkkaar kon nañu taxaw fonkaat julli bu baax a baax doomu ndeyu mbokk julli ni ëpp naa def julli bi di bàyyi julli rawatina nit koo xam ne mu ngi ci gox gox bi am bërëb bu jullikaay muy jàkka mu dégg noddukat bi nodd te demul wuyu ji xooleen mbugal bi muy am yow mal xiyam maanaam dafa dégg noddukat bi nodd moom dégg na ko ci noppam amatul benn excuse dem wuyu ji rek moo ci topp mu sàgganee ko demul wuy ji yoon saa saa ne dañuy jël bettax xam ngeen bettax mooy plomb dañ koy togg ba mu ruy ba nekk ndox ñu koy sotti ci ay noppam ndax lan mooy déggoon na noddukat bi nodd woo ko ñëwal julli woo ko ñëwal ci texe bi waaye ñëwul wuy si moo ko yóbbee ñu tàngal bettax bi ba mu tàng sotti ko ci li nga xam ne mooy noppam wax yi du ay waxu caaxaande wallahi azim ñaar rek moo mën a nekk waxu yàlla lay doon wala mu nekk waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxu yàlla nag mooy kan mooy nit ki dafay xam yàlla ak dayoom xam ne lu mu diggee dina ko def waaye mu xam kan mooy yonent bi mooy koo xam ne du waxantu lu mu wax dëgg la foofu la ñuy nattee wax yi ci la ñu mën a taxaw respecté li nga xam ne mooy julli kuy julli lii moo la ciy fekk ci ay teranga waaye koo xam ne bàyyi na julli tam lii moo la ciy fekk ci ay mbugal kon nañu takkaat suñu ndigg ñu ngi doon julli nañu gën a góorgóorlu jàpp julli waaye tamit daawuñu woon julli dégg nañu wax bi nañu gën a góorgóorlu fonk julli daawuñu woon ñëw jàkka dégg nañu wax ji nañu gën a góorgóorlu fonk ñëw jàkk góor dafa war a julli si jàkk góor dafa war a julli si jàkk jigéen nag mu jullee ci këram moo gën waaye su bëggee ñëw si jàkk ji bu kenn tere mais góor moom amoo benn ngant wallahi da nga war a ñëw wuy si ginnaaw bi nga déggee nodd bi aquli qawli hada wa astaghfirullahi li wa lakum saa'iril muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in doomu nday mbokk jullit ñi comme niñ ko waxee ci julli suñu deuxième partie dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy ar rawatib bu ñu ne ar rawatib moom mooy verbe bi nga xam ne mooy verbe rataba rawatib ni ñu koy déggee mooy julli yi nga xamante ne dafay ànd ak julli farata yi xooleen xadis bi nu mu neexee yàlla mu ne sama jaam bi du dañ di respecter ay farataam waaye mu teg ci dem ba romb farata yi di teg ay naafila yàlla nee na jaam bi man maa koy bëggal sam bopp xam nga neex na nga taxaw nga ne man bëgg naa yàlla loolu neex na mais est-ce que yàlla bëgg na la foofu la question bi nekk te nit ki ku mu neex mu taxaw ne man bëgg naa yàlla waaye bi dàq mooy yàlla bëgg la yàlla nee na man maay bëgg sama jaam bii lan moo tax ma koy bëgg mu ne dafay taxaw respecté ay farataam yamu ci mu dem sax bay def ay naafila di ko di ko ci teg yàlla nee na damay dem ba sax man maay nekk li nga xam ne mooy maay nekk bëtam waaye man yàlla man maay nekk li nga xamante ne maay nekk ay loxoom maay nekk ay tànkam loolu nag ça ne veut pas dire que bëtu yàlla nga yor wala loxo yàlla nga yor wala tànk yàlla nga yor déedéet mooy bët bi dafay jombati xool lu xaraam mooy loxo yi dafay jombati def lu xaraam mooy tànk yi dafay jombati dem fu xaraam nii la ñuy déggee yàlla man ne man maay doon ji ay bëtam waaye maay doon ji ay loxoom waaye maay doon ji ay tànkam yàlla bëgg la waaye di représenter sa cër yii lan moo la ko may mooy respecter say farata ba teg say naafila doomu ndey mbokk jullit ni naafila dafa nekk loo xam ne lu am solo la si dund nit ki. ci ay jaamu yàlla bu ñu nee naafila nag mooy ci xeetu jaamu yàlla yëpp am na ay naafila waaye ci julli dafa am julli yi nga xam ne dañ leen tuddee ay rawaatib ñoom dañoo sësaloo ak li nga xam ne mooy julli farata yi mooy lu mel ni ñaari raak fajar moom moo gën ci rawaatib bi mooy ñaari raak yi nga xam ne da nga koy julli ginnaaw bu ñu salaatoo ba pare te jëmaguñ si julli suba bi yonent bi ne ñaari raak yooyu moo gën àdduna ak li ci biir du farata de naafila la moo gën àdduna ak li ci biir waa kon suba bi ngay toftale nekk farata moom lan moo war a nekk dayoom loolu question bu ñuy posé la kon looy encouragé la ci nga war a fonk julli farata yi la julli naafila yi mu am ñeenti rakk yoo xam ne nit ki da koy jiital tisbaar avant nga julli tisbaar nga julli ñeenti rakk nga julli tisbaar ba pare julli ñaari rakk nga julli timis tàkkusaan bokk ci julli timis julli ñaari rakk nga julli gee julli ñaari rakk boo calculé douze rakk lay nekk yone saa salaam nee na ku sàlloo di def loolu dañ lay tabaxal kër àjjana saa boo ko defee rek mooy journée boobu jàpp ne tabaxal nañ la kër àjjana ñun suñu kër yi nga xam ne këru àdduna yi nga xam ne abri provisoire la ku ci génn àdduna ñu génne la sa kër dem denc la ci suuf ku ci am benn du doy boo ci amee ñaar du doy boo ci amee ñett du doy waaw fa wa kay fa kër yoo xamante ne biri gi ay or lay doon ay xaalis lay doon mélange ñu ne saa boo defee juróom fukki ràkk ak ñaar yi ci journée bi toftale ko ci julli farata yi dañ lay tabaxal kër li nga xam ne mooy àjjana kon doomu ndey mbokk julli yi ay ngëneel la yoo xamante ne toftale loolu si julli te li ci gën a neex mooy nit ki li fekk mu ngi koy sàmm te boo xoolee ki saloo xadis bi jigéen la mu ne bi ma déggee yonent bi wax lii ba léegi delesewuma naafile yi bi ma déggee yonent bi wax xadis bi mu ne ba léegi delesewul douze rakk yi par jour kon fan lañ ciy tollu ñun bu ñu déggee wax bi léegi bokk na tamit ci naafila yi mooy nit ki bu sàlloowee tisbaar mu jiital ñeenti rakk bu sërmalee tamit mu julli ñeenti rakk yàlla dafay araamal yaramam bi safara fay neex na de te rëy te yàlla mu ngi ko digg ci ay naafila waa kon kon farata yi fan la war a toll si ñun kon nañu bàyyi xel bo loolu bu baax a baax fi ñuy jeexalee nag mooy nit ki fan la toll ginnaaw bi mu déggee lii ak julli fan la ci toll loolu question bu ñuy posé la ñu bàyyi ko ak ku nekk mu tontul ko boppam fan la nekk toll ci moom ak julli ginnaaw bi mu xamee ne julli wàcc ko feebar bu mu munti am julli wàcc ko li fekk mu ngay xelam lii ñu wax ci julli yépp ci ku koy def lii ñu wax ci julli yépp ci koo xam ne defu ko question bi ñu koy laaj mooy fan la toll moom ci julli ndax daf fiy jaaree continuer rek ni mu nekkee woon bàyyi julli wala daf fiy gën a góorgóorlu bu daan julli tamit gën a takkaat ndiggam xam na ci li mu nekk mooy dëgg question la bu ñuy bàyyi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا منا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله